sali boss comment tu vas ça va boss damaa ñu waxtaan de ndax man sama xel dalatul dara depuis ba ñu waxee lool ba léegi sama xel dalatul te man xam nga ni jeune fille bu kii exemplaire la te yooyu moom dëgg yàlla sama xel dalatu ma bëggoon rek ñu waxtaan ci ndax xam nga ni temps yi nelaw bu baax sax mënuma ko sama xel dalul fu ma toog moom laay xalaat te dëgg yàlla loolu mënuma ko dundaale sama àdduna

waaw ak noonu noonu ñu amoon lépp lépp lépp ñu taxaw xeex ko ba tey nga bëgg a bàyyi loolu loolu xam ni doo ànd su ma soñoon daal nga nga tey teel teel jëla sa temps. et puis boss parler li nga may def loo nii buñ ko doon def sa doom et sa dina la neex te li ma ci jaaxal mooy sa doom yëpp yóbbu nga leen bitim réew ñu nekk ci condition yu baax yow nga teg ma fi di ma liggéey yu bon c'est pas facile c'est pas facile Di moo tax ñu naan su mag di fo xalé fo jaar yaram dum. ah kon affaire bi mom affaire bi dafa ñëw ba tollu fo xamantene yow yow da ngay tudd yaa ci tuddu samay samay dom si affaire bi te li ni business bo xamantene commencé nañ ko bu yàgg yag la Yaay comprendre te boobu ba léegi ma ngi wo dara kon dama bëgg nga dal nga nga nga ak sa sang froid Yaay comprendre lu tax ma tudd say doom booy xool neuf équipe lañu te ku nekk di nga laal quinze millions ba wala neuf millions pourquoi pas man man lan laa ci gañe boo jógee naan ma dalal dalal ba kañ man lii sama der moo ci yàqu ba kañ kon daal dangaa bëgg a ne man may xale bi tilimal yëre mag ñi yéen da a soxor yéen baaxoo leen may naa la une semaine pour nga jug ci man fii une semaine bu dara bu dara wul dina balancer lepp amatuma lenn loo xamante ne dama koy ñàkk ndax yak nga lepp hay tu menaces soxna ci deglul xola ne me pousse pas à prendre une décision que tu vas regretter xamul baax li ma lay wax nak yobo nga setat li ngay wax ma du man man kenn du ma menacer. ah ok da nga yakane limay def ni ay fo la du ay fo de amna na ku toog sama wet ko xamanteni mi ngi enregistré yëpp ah ok ya defal ni sa xel ni amna na ku nekk ci sama wet te ko sax dégg turam te lépp lu ñu wax instant bi ma ak yow rek tam mo ngi koy enregistré te ni mala la rek une semaine la la may wala rek dépp dem ñu faran jam bonne nuit. mais merde qu'est-ce que tu dis yow looy wax ni kan kan kan kan kan yow la ngay wax ni lan ngay wax.